merci monsieur président monsieur le de de la pêche euh, moo nuyu Pape Sagna maa ngi lay nuyu di nuyu sa nattangoo ministère yi di nuyu sa collaborateur yi nga àndal yëpp di ànd ak ñoom di liggéey di sant yàlla bu baax di gërëm sëñ Touba di la féliciter encore parce que man ak yow nekk na fi cinq ans nga nekk sama xarit malgré que léeg-léeg léeg-léeg dem jébbalu si keneen waaye nag moom nit ku baax nga parce que xam naa nii euh, ñëpp nga amaloon jàmm ñi fi nekkoon def fi ñaari mandat xam nañ yow yaay kan malheureusement nag sensé ka taxul nga sensé jikko parce que li ma xam si yow rek mooy nit ku baax nga nit ku ko nga nit ku bëgg a liggéey nga bokkuma yow fu ma far waaye xam naa nit ku baax nga xëy na ku la xamul moo lay waxal loo xamante ni nekkul man gaw ma loolu di remercier bu baax aussi sa délégation bi nga àndal di si euh, sepp rek euh, Muntaga le directeur de port parce que li tax ñu koy tudd mooy ñun dañoo nekkoon ay nit yoo xamante ni euh, dafa amoon benn mission bu nu bu nu doon xam ñoom ñoo ko dirigé woon au niveau de Dakar ak Touba. jamono yi nga xamante ni moom la yore woon APEX organisé maanaam organisation bu am solo ci mbirum TER bi Sénégal yëpp doon naan TER bu daw. ñu àndi visite boo xamante nii mu dugal ñu foo xamante ni tey bu pee TER bi dawee Sénégal yi am certification ñu ne woon TER bu daw waroon nañu ko mën a remercier ci loolu te wax dëgg yàlla gis naa defuñu ko mu xam liggéeykat la. li tax mu def foofu dooru ba président de la République yéene ko ba déglu na si ñaareel bi la pour sa autre ila Touba beeg yu bare bari ci tutelam la ko lan ko monté woon kon kooku liggéeykat la bu jëlee au niveau de port fan yi si ginnaaw rek bi ñu amee ay jafe man bi ñu ma wooyee en tant que député de peuple bi ma si jokk ak premier ministre ñoom def nañ organisation liggéey bu rafet ba nga xamante ni tey euh, situation bi ni meloon malgré que wàññiku na kon kooku ñu ngi koy remercier ci loolu. yow nag boo ñëwee nekk ministère boo xamante ni yaay kilifaam nekk ak Moustapha Ba ak Samba si askan bi ñu nit ki bu defay dara da nga koy encouragé pour en ëllëg. na directeur yëpp mel ni moom parce que mi ngi liggéey te bërul wax boobu laa ko gëj a xam en tout cas mi ngi def lu baax. beneen bi monsieur le ministre ñu jëm ci mbirum napp gi situation bi ñu si baree bari ñu si wax xamuñu si lu bari parce que fi may wax ak yow Sénégal dafa am ay convention yu mu signé ak ay nattangoom bëgg nañu xam convention yu mu signé ak accord yu mu signé ñaata la si état Sénégal di gagné parce que nag tey ji suñu bit bii nga xam ne ñoo koy wote ensemble national am na si loo xamante ni ci convention yi ak li nga xam mooy accords yi dugal nañ ko si biir Sénégal bi nga xamante ni ñoo koy war a wati mu war a doxal ministère yi beneen bi li jëm ci mbirum gaal yu mag yi monsieur le ministre gaal yu mag yi kenn mënu leen a contrôler léeg-léeg ñu dugg si biir ak tasee gaal yu ndaw yi fël yéen wala ñu def loo xamante ni kenn xamul lu mu toll yéen nan ngeen teg pour que maanaam fas yéene contrôler gaal yooyu nga xamante ne maanaam bu ñu duggee si biir géej gi fi leen war a yem la duñ fa yem monsieur le ministre ku ne xam na ni napp dafa bari ay façon tey boo jëlee dafa am lu ñuy wax naan euh, mbaal euh, filator am na tey mbaal saynu am na mbaal siral am na mbaal filaas am na mbaal euh, dumitor am na mbaal boo am na ñoo waxante ni moom la ñuy wax gaalu kees yooyu yëpp dafa am léegi li nga xamante ne moo nekkoon pour promesse président de la république ci napp bi pour bañ ñi maanaam ndaw ñi génn di gàddaay réew dafa waxoon dana am subvention bu am solo bu mu xam da koy jagleel nappkat yi loolu fan ngeen si toll gaal yi nga xamante dañu waxoon dañ koy sensé du la ko si dénk yóbbu ko si métallique fan ngeen toll ci gaal yooyu noonu li nga xam moo nekkoon moteur yi nga xamante dañ koy subvention ñaata moteur ngeen jot subventionné ci li nga xam moom mooy Sénégal li si des mooy monsieur le ministre ñun bu ñu sañoon kenn du tukki di gàddaay di bàyyi sa liggéey mais nappkat dañ leen a war a jàppale te jige leen tey wax ak ñoom parce que amu leen nag communication bu jëm si ñoom parce que lu si bare bari manque communication moo ko waral ndax ndaw loo xam ne dafa juddoo si géej nekk lébu amul lu dul maanaam war a dem napp si géej gi gis tey ji fa mu war a napp ay gaal dafa napp ëpp ko dool dëkkuñ si réew mi loolu yaay problème loolu moo tax ñu suñu programme 155 dañoo jël si maanaam ci li nga xam ne mooy dernier maanaam troisième bi ñu ni bu ñu yàlla mayee ñu jël réew mi 2024 en tant que candidat nekkal fa askan wi doomu daara dañu fexe jël ressources naturelles yi nga xamante ne géej bokk na si ñu delloo ko askan wi parce que nag jàpp naa ni contrat yi nga xamante ni moom la si signé malgré que am na koom-koom bu muy indi réew mi waaye li muy xañ ndaw ñi si liggéey nag ak li tax que ñuy gën dem di bitim réew di euh, daani seen doole bare na lool en tout cas bonne continuation li des bareetul trois mois rek nga après xajal ñu parce que Cheikh Abdou ñëw jël réew mi xam naa bu ngeen jëree moom dina am ñu ma liggéeyal mais damay segg xëy na ma boole sama côté mais en tout cas daal vraiment ñi nga ñi ngi lay ñi ngi lay souhaiter bonne voie ñi nga xamante ni ñoo nekk si ginnaaw parce que techniciens yi du ñu ay politiciens techniciens yi askan rek moo la nekk ku mën di jot réew mi da liggéey ak ñoom en tout cas je maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah